maa ngi ñaan ci dara darajay Cheikh Ahmadul Xadim photo bii ne ku ko partagé moo xam kër la moo xam ay kayit yooyu lijjanti la moo xam soxna sooy lijjanti la moo xam palaas moo xam loo mën di bëgg maa ngi ñaan ci doole yi Sëñ Tuubaa boo partagé photo bi yal na ko suñ borom jàpp na ci barke bayit bii ci Sëñ Tuubaa bi mu yaa rabbana bil muntaxal bashiri kun liya fi daari za tayshiri maa ngi ñaan ci doole Sëñ Tuubaa koo nga dajeeg ña wa fitnatin wa dararin wa batashin Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko joxe ngir fitnay mbindeef yi ku ko gis doo faatu ren ak déwén incha allahu rabbi yi ñu bëgg mbokk yépp jariñu ci ngir xool ko ndax ñi ñépp lañ yéene jàmm di ñaan sunu borom subhanahu wa taala boole ñu jàmm di képp ku ko tasaare yiw mu ci am yàlla nga ci mu yiw ak boole ko yiw mu ci am suñu borom boole ko te boole ko ñëpp barke